man li may jot ci message ci par jour. ci Sénégal ak ci Afrique. il faut ñu waxtaane ko. ay kilifa bind nañ ma ne ma chloroquine bi la soxla. non et cetera et cetera. parce que aujourd'hui ñun li ñuy bañ al man li ma bañal demb nit lay bañal parce que mënu ñu nekk ci Sénégal yi ngànk lu nga xam ne dafa sensible moy garab. tey ñu jël ben garab bo xam dañ day moo doon faj si buru bo xam ay ñaar fukkat ci ginnaw ginnaaw indiloon nañu problème yu rëy rëy rëy. tey ñu yegg fenn ci c'est important c'est vrai que fu ñu toll lepp luy mëna fajj baxna lool nangu nañ ko li mën a faj Afrique ak fa baax na am na effectivement chloroquine moom la ñu teg en sur la table. effectivement de am na ay cliniques yu nga xam ne ñu ngi koy def kër ci ci malade yi. te ubbeeku nañ ko ci fu bari loolu mais aujourd'hui fi ma wax ak yow organisation mondiale de la santé mooy kilifa ñëpp ci wàllu faj. nee na joxu ci benn autorisation. amul benn garab boo xam ne mun def nañ ko tey pour ne traitement étiologique la amul li fi am mooy traitement symptomatique. parce que ñun li ñuy bañ mooy. parce que tey Sénégal bu doon dem day dem ba jël décision bi leer mooy dinañ ci ci ci li ñuy bañ nit ñi ñu ah, euh, jaawale clinique la ñu koy def amaguñ ci lu ak médicament a pas de preuve scientifique. virus réellement sur le plan génétique. li ci am solo ñu koy laaj parce que traitement préventif. et là ça ça allait ça peut être très catastrophe. parce que bëgguñu corona jóge fi. parce que ak corona mais corona fi parce que si lim ñuy rey par jour. téeméeri junni nit dañ faatu ci Afrique par jour. te corona boo xoolee lëmb na mais préoccupation mondiale la moo tax. Afrique problème bi ñu am mooy sibiru bëgguñu corona dem indi sibiru. Hmm. donc nit ñi nañu may. man mënuma comprendre ñenn ñi li wax mooy. ñu koy xool ci tubaab bi mais ci Afrique fii am na ñuy wax ay tel produit tel li ñu nangulul tradipraticien parce que amuñu preuve scientifique. ni ñu ko mën a ñoo xam ne nekkuñu Afrique. lañ nekk. amuñu preuve scientifique ñu war ko mën a dem faire faire faire ça. loi ko ubbee ba tey IRESSEF mi ngi ci parce que man li ma gëm mooy jamono fu muy toll pour du pour corona rek mais même fu ñu jëm fi yeneen maladie ubbi laboratoire yi préparé c'est important. que muy bu mën a doon. Euh, boo xam ne war nañ ko mën a boole ñu boole ko c'est important maintenant parce que nit ki war a dem pour xool boppam kooku mën na bañ am njëriñ lu tax al mën na bañ am bu pathogène muy charge virale parasitaire et cetera bu fekkente ne commencé na te génnagul tollagul sëy bi ñu ko détecté yow mën nga dem yaakaar ne amuloo ko fekk si jour boobu la lay soogaloog wala si bis boobu la lay wala deux jours nga ne bon man amuma ko donc c'est bon donc da ngay xaar ba yaakaar ne am nga mandarga boo ootee foofu mooy directive bi fu toll nii directive foofu la toll sur tout concernant toutes les malades, même sur le plan bu mu mënti doon dañu naan la toogal ba mu mandarga ce qu'on fait les enquêtes épidémiologiques de prévalence loolu euh, état Sénégal amagul fenn fu ñu ko def ci àdduna donc du fii lañ koy defee su nekk daal toppal digal yi boo demee ba gis les premiers symptômes wala nga yaakaar ne am nga exposition cas contact wala yow jëlee na ci dëkk boo am bu boobaa systématiquement dañ koy def mais koo xam ne yaa ngi si kër sinon dafay am loo nga xam ne ñëppay dem ne dañuy def yi te loolu àtt nuñ ko te loolu indi day indi jaxasoo ah, du Sénégal yaa ngi jóg di góorgóorlu ci loolu et partenaire également c'est le moment de les remercier partenaire yëpp yu jàppale Sénégal du ci corona bi rek boo jëlee sida bi boo jëlee palu bi boo jëlee tuberculose yi pratiquement test yooyu yëpp lépp luy maladie endémique bu nga xam ne touché na proportion loolu do en réalité doo ci fay dërëm